asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sama mbokk jullit yi maa ngi ziyaar ñëpp di nuyu ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di ziyaar sama nattango bi ma toogal soxna May juuf di ko ziyaar di ko tatagal ci weeru safar bi ñu nekk di ko jàppale ci màggal gi di ko ziyaar bu wér soxna May ñu ngi lay ziyaar waa soxna May dañ fee ñëwoon tey waa Touba Argentine indi woon fii ay laaj yoo xamante ni euh, ku ko trouvé ci màggal gi am na ay yu yuñ la yuñ la war a jox cadeau yaa ngi nii di tege am na ay neexal yu duun yoo xamante ni indi nañ ko fi ku trouvé euh, question yi soxna May di laajte rek incha allahu bi di nga am ci neexal yi ñu indi euh, soxna May ñu bàyyi laa kàddu gi nga dugal question yi yi ñuy laajte. sunu mbokk jullit yi auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu soxna si nu toogal fegool uh, sunu tànt tànday ja ñoo ngi lay nuyu di la siyaar di la jox sa wàccuwaay ci 18 safar ji waaw kon ni ñu ko waxee rek sunu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñépp ci bokk rek neexal yaa ngi nii question yi ñuy posé ku ko trouvé ku nekk rek neexal yaa ngi ñi nga ñëw ci studio bi ñu jox la ko Touba Argentine TV moo koy joxe ci 18 safar bi di neexal yi yànj nag def ko cadeau pour ñëpp ñi koy seetaan ak ñi koy bàyyi xel rek. question bi ci njëkk mooy ku tedd ki muy Serigne Touba Xaadimal Moustapha fan la njëkk a wootee màggalu Touba ak bi mu ko wootee bërëb boobee mu ko doon wootee ku ko fa jëlee. indi ko Touba ndax fan ko fim ko njëkkoon a wootee fan la ak bërëb booba ku ko fa jële ba indi ko biir Touba beneen question bi ci topp mooy soxna Faati Ja rakk la ci Serigne Touba doomi soxna jaara jamono ji ñuy wax ak yéen fan la barabam nekk soxna Faati Ja rakk la ci Serigne fan la barabam nekk jamono ji ñuy wax ak yéen beneen bi ci topp mooy kan moo njëkk a gëm Serigne Touba gëm gu wér a wér kan moo njëkk a gëm Serigne Touba gëm gu wér a wér ko trouvé ñetti question yooyu rek ku njëkk a trouvé ku nekk kado yaa ngi nii tege boo ñëwee ci studio bi Touba Argentine TV rek dinañ la jox sa kado ci weeru 18 safar wi. Ah, loolu moom wax dëgg yàlla am na solo am na solo lool macha allah ñu ngi rafetlu question yi bu baax a baax a baax a baax kon nag sama mbokk yi yéen ko déggandoo question yaa ngi noonu képp ku ko trouvé. incha allahu bi nga ñëw fii sa neexal mi ngi nii ci studio bi Touba Argentine soo ñëwee incha allahu rabbi di nga fi fekk neexal yi sëñ góora mi ngi fi Gambien mi ngi fi